yëkkati na moom premier ministre des industries minières yi la nenn fi mu ne le tey mooy yéene kaay naan maan ci ndaje bi ñu amaloon moom amadu Ba nga naan leen du ñu nangu nag ngeen nekk ci réew mi di rootee ci réew mi yóbbu seeni gox wala duufal seeni poche askan wa leen wër nekk ci ndóol bugaan gay dani ci l'info yéene kaay naan kon mu Amadou Ba yaa wax lii kon xam nga ni yéen seen gouvernement gi ci boppam dañoo daal di lajj ci anam yu ñuy gérer ressources minières yi fii ci réewum Sénégal turbine yéene kaay naan man en tout cas bugaan gay dani yàgg na leen tuumaal ñoom nguur gi rawatina nag ci wàllu miin ni muy doxee ci réewum Sénégal ay gox-goxaan yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi miin gi daal di koy wër ñu fay daal di jëlee meññeenteef yi nekk ci suuf gi waaye askan wa nga xam ne ñoo fay yeewoo nekk ci ndóol goo xam ne maar day taali amuñu lu ñu fajoo amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan daanaka courant boo xam ne mën na leeral seeni mbir su weesoo miin yooyee amut bugaan gay dañu mel ni ku naan woon nguur gi acam yéen a xeeb askan yéen a ñàkk yërmande ci seenuk askan yéen ñàkk taxaw seenuk askan bàyyi nit bàyyeekoo bitim réew réew jël meññeefu Sénégal yi di ko tibb di duufal seeni gafa ak di yóbbu seeni réew booba ngeen di seetaan seenu askan ñuy tumranke ci seen gox yoo xam ne fa la ñuy jëlee miin yi nekk ci ndóol goo xam ne maar day taal yi Amadou Ba ci la témoin yéene kaay mel ni ku naan leen lii mooy jeex ci réew mi de seen gafa di duuf askan wi di ndool moo fiy jeex bugaan gay dana ci turbine yéene kaay naan dama ne yéen nguur gi xoolaat leen seen bopp ba noppi laataa ngeen di wax industrie minière yi ndax xaalis bi nga xam ne collectivité yi héberger société minière dañ koy dugal nguur gi da koo détourné askan wi waxuma la askan wi de manière générale de waaye askan wa nga xamne sen gox la miin ya nek gisunu ko yeen ngeen bay ni nga xamne ñoo exploiter miin bi ñàkkal fu la dem bay toroxal gox ya nga xamne fa lañ sosoo fa sen teranga du jugge ñi nga xamne ñoo fa dekk momé ko ca mam ñu leen di toroxal njital gëm sa bop naan leen yeen nguru senegal yéen setan lolu yor yor nan man geey nga naan leen yeen ci bopam tay nguru senegal yéen nangu boobu échec 24 heures yéen kay man Amadou Ba kay mojok jox deug njital gëm sa bop le mandat yéen kaay naan maan rax ci dolli moom gouvernement gu Sénégal daal di fekk si na njiital gëm sa bopp ci discours am l'évidence naan bugaana nga naan leen tey Kédougou bu nekkee ci ndool nguur Sénégal lu njiit njaag yéen a cay njaag ndax ndool gi dëgg-dëgg yéen leen ci fekk si réew mi ko dijee naan maan en tout ci réew mi day dox na junni téeméer ak ñeent fukk ak ñaari milliards lañ doon def chiffre d'affaires ci 2020 ci 2021 bii ñu toll ci junni juróomi téeméer ak juróom ñett ci milliards ci 2021 mu yokku nag ci boo jël ñaar fukk ak ñeent ci 2021 quotidien bii rek ma ni la ñaari téeméer ak juróom benn ci milliards dugg na ci gaf ak nguur gi ci recette fiscale te lépp nag mi ngi bàyyee koo ci société minière yi ma ne 2023 bi kon lan moo dugg kon xam ngeen ni société minière yi ñu ngi daal di andi koppar gu bari ci réew mi waaye koppar googee askanu Sénégal daf koo jëfandikoowul rawatina nag gox yi nga xam ne fala la ni nekk fu ci mel ni gu Kédougou gu boo fa demee gis ne ndóol goo xam ne mar day taali moom la askan wi dund ndóol goo xam ne deesu ko andi génn ak laam-laamee te bu ci ndóol mu neex dañu leen di tuñ tuñal lëkkaloo ceeg takk der yi di leen tegi ñaaw teef dem sax ba yenn saay bakkan yi di ci rot ci loo xam ne seeni suufa seeni suufu maama lépp feeñ ci ñoom tey ñu leen di tëntëñee xam ngeen ni ñaaw na l'enquête ko di jee naan maan la nar a ñaaw kay ba jéggi dayoo moom moo di nag bëgg-bëgg nguur nga xam ni feeñ na ci biir waa Bennoo Bokk Yaakaar ndeke dëgg-dëgg gaa yi ci boppam nag ñoo bëgg nguur lu ëpp fukk ci candidat daal di feeñ ci kangu majorité bi te fa mu feeñee moo nar a ñaaw ci Amadou Ba ndax diggante Jolof Njàmbur ak Fulaadu fa nga xam ne daanaka ñay woteel Benno Bokk Yaakaar foofee la ñu nekkee foofee nag ñoo daal di samp seen i mbër fa yàllaahu yéenekaay bi naan maan lii mbaa dug làmbaatu kese ngir buur ci boppam gën laa jox bopp laas naan maan en tout cas yi door na moom Marème fay Sall nag daal di soobu ci parrainage googee fas yéene nag ngembul candidat borom kër ga muy Amadou Ba mi nga xam ne mooy candidat président Macky yoon yónni Thiam mi jiite soxna yi APR yi nekk ci diwaanu Tëngéej ci waa Grand Place naan Amadou Ba rek diggante Rufisque Nord ak Est Ouest ba Sangalkam bambilor ba ci tiwaawoon pël yónni ko ni ko yónni caam waxal yónni naan leen ñun waa Tëngéej rawatina soxna yi ma ni la candidat président Macky Sall Amadou Ba la ñu ngémbul fasal ko yéene ndam Bougane Gueye Dany ci yéene bi naan leen ndam kay yéen balaa ngeen di wax ndam ci 2024 wax leen ndam ci li ñu nekk nii ndax yéen a ngi jébbale ay contrat ci miin gi contrat yoo xam ne jaarul yoon ay prête-nom ak leneen ak leneen am ci tey jii li nga xam ne ñun ñoo ko moom yow Amadou Ba nga jiite gouvernement bu Sénégal askanuk Sénégal gisu ci lenn ngeen yor yor woo xam ne bon na ñaaw na salte na tey ji yow Amadou Ba buñ la joxee suñum réew fu nu jëm yor yor naan ko takk te lii ma ni la moo nar a gàkkal candidature bu Amadou Ba bii 2014 ak tey Ousmane Sonko ma ngay wax nag ci loi des finance naan leen nañu leeral alal ji fu mu dugg Alioune ñaan secrétaire général bu cour des comptes daloon ci kaw ministre économie ak finance ba woon di Amadou Ba tey ji tey ji ñuy wax ne moom amadu ci boppam ay milliards lay doxantoo yéen kaay bi naan man moo Amadou fu mu jëlee milliards yi nag te xam ngeen ni ngeen bëgg dénk seen réew mu doxalal leen seen i alal leen fu muy dugg lobs naam ci démb démb lu toll ci ñaari téeméer ak juróom benn ci candidat jël nañ de parrainage ba le regard yéen kaay moom po lañ ko jàppee ku jóg retiré fiche de parrainage bi mel ni ku jàppeewul mbir mi sérieux Walf Quotidien naan en tout cas am na ci candidat yoo xam ni seen xel rafet na wax ja rafet na waaye mënuñoo yeey kenn l'info yéen kaay naan maa ñey retiré parrainage day Thierno Bocoum du ca bokk ndax nag génnee na boppam ci élection yi du candidat l'observateur naan maan ak bëri ay ndëgg sërëx moom parrainage bi Anta Babacar Ngom ci yéene kaay bi naan leen bu leen ma jàppee fii à papa Mamadou Lamine Diallo ci tribune yéene kaay naan fi mbir yi toll nii politique Sénégal ci boppam moo neex Sénégal moom mi ngi dox mel ni nit ko amul bët di tëñ-tëñi te làmbaatu sax ma ne la munu ko ndax i loxo ñu nekk ci réew moo xam ne amul gouvernement ka ko jiite mooy premier ministre bi fi mu ne ma ngay campagne yéene kaay bi naan maan moo tax fonction président de la république ci boppam ñu tuutal ko ñàkkal ko fayda ci réew mi ba ku jóg ne dama yóotu baatu réew mi leen fa yéene kaay naan maan Ba nga woon ca ñuy doxal réew mi doon wax nag ci entreprise minière yi nga xam ne daanaka askan wi gis ñuy seen bopp Amadou Ba premier ministre naan lii day jeex ci réew mi daanu saytuwaat contrat yi xoolaat bu baax a baax nu ci askan wi gisee seen bopp tribune yéene kaay naan man askanu raneeru it léegi ñu gis seen bopp lu toll ci fukki milliards la ñu daal di débloqué ngir juróom fukk ak juróom-ñett ci dëkk dëkkaan daal di génn ci lëndëm gi ñu nekkee moom Baba Diallo directeur général bu ASER naan lu toll ci juróom fukki nit ci diwaanu Matam Kanel raneeru Goudiry ba ci Bakel seen bopp fii ak 2025 ci leer goo xam ne daañ ci tàbbi jóge ci lëndëm gu metti gi ñu nekkoon laas naan man docteur Marie Xemes ngoom Ndiaye ma ngay wax ci joyanti l'hôpital bi jafe-jafe yi nga xam ne am na ci ci accueil ba ba ci saytu maladie ñu daal di koy rafetal ci réew mi libération yéene kaay naan man xeexoo ba amoon ca jokkul ñu doon dem Barça wala Barzak la ba ñuy yekkale ay kandidaa ci geneen gaal boroom gaal yooyee jàppoon dañuy sàcc seenu moteur ñu daal di ñëw dal ci kaw gaal geneen gi loolee juróon ay coow ba mu ne am nay xale yoo xam ne réer nañ may ñu ngi ci ndox bi observateur nan man ca maatam jakartemaan bi ay soxna rek lay yeb bu deme ba ci all ba dal di lay wacce sakku la bu noppé dal di jël la nga yor dal di dem ak mom las nan man legi soxna yi meun ñu noppalu ndax ñaawteef gu ñuy dund ci biir kër yi meun na jeex ba ci mbedd bi sax meun na jeex tegal nan len numéro 116 ñu meun ca woote duñu fay dara boole ka nga xamni mo moo leen di fitnal ak di leen ërtal ak lu meuna mbokk yi ñu ñaan jamm te yendo jamm national jëm ci production totale bu produit minier nak ci walum ciment acide phosphérique nag engrais bi jóge na ci mille cent quarante deux milliards yegg ci mille cinq milliards deux mille vingt Sénégal euh, def na benn bon qualitatif jëm ci euh, secteur bu ni mel euh, Cheikh Ahmed Tidiane Seck du ñàkk daan si ndax moom si suñu yeneen jotaay xibaar waaye lii daf ñuy may ñu dikkaat ci kàddu ya nga xam ne tey jii yéenekaay yu bari dikkaat na ci Bougane Gueye Dany dafa mel ni Amadou Ba dafa dëggal jàmbat nga mu daan teg ci table ji. oui jàmbat googee mu nekkoon loo xam ne dañ ko yàgg jooytu. Mhm. muy miin. wala ressources yoo xam ne meññeef yoo xam ne ñu ngi ci biir suuf si ay société yu cosaanoo bitim réew ñëw di ko exploité non seulement di ko exploité mais ngañaaya ñoom ñoo koy moom askan wa furaas mm. wala pënd kese lañ leen di bàyyi du yoon yu jag du école yu baax du fajukaay yu yu yu yu mucc ayib du dara dëkkuwaay sax mooy loolu waxuma sax loolu mais le minimum ci ndékki añ reer askan wa du ko am alors que lay jóge ci meññeefu suuf sa nga xam ne ñoom fa la ñu dëkk ñeneen ñoo koy jëriñoo ñeneen ñoo ci gundaandaat loolu nag ñu bëri yàgg ko dénoncé société civile ak ñeneen ak ñeneen ba ci Bougane Gueye Dany mii nga xam ne tey jii moom la tribune xëyee ne kon Bougane la mu doon wax dëggal euh, premier ministre dëggal na ko jox na ko dëgg ci wàllu googee donc loolu la ñuy yàgg di jooytu parce que mine yi li fi nekk ma mbay nañ ko wax a commencer par le zircon à commencer par l'or à commencer par le fer ak yenen ak yenen ba ci phosphate bi mais li ci génn ci alal du jeex du xaaj dégg nga fi yenn contrat yoo xam ne dañ ko sax négocier waat dañ ko négocier parce que jamono jooja la ci réew mi amoon réew wax de de manière générale réew mm-hmm. mais lu néew la loo xam ne mm-hmm. xel sax mënu ko mais imaginez loolu yëpp ci Sénégal mais particulièrement askan wa nga xam ne moo fa te gis nga

après la ca des dañ koy puudar rek ba mu baax foog ne waa ji mi ngi fiy investir loolu ak loolu boo fekk France la plupart des recettes vont directement à la caisse de l'État léegi nag recettes yooyee au lieu que tëngéej mi nga xam ne moom moom suuf sa ëppale ca mais tëngéej da koy bokk ak Sénégal yépp bokk ko ak peut-être village boo xam ne dara amu fa sax ci meññeef loolu nag bon c'est de l'équité territoriale mais équité bi est-ce que gënul woon bi nga xam ne comme suuf sa meññeef ba fa la jóge également li ci ëpp di dellu ci ñoom nga xam ñom ñoo mhm. parce que loolooy loi bi actuellement dañuy dajale ressources yoy yëpp après ñu do ko partager nak ci askan wi alors que la localité pouvait en bénéficier suma en tout cas lolo fi nekkoon ba légui donc il est temps d'engager la réforme il est temps de revoir les objectifs il est temps de revoir les priorités d'investissement parce que lu toll ni oru Kédougou lu toll ni zircon bu euh, euh, Diogo etc., etc. phosphate bu mais pourquoi ña nga xam ne ñoo fa dëkk ñu leen di naxee toujours ay liggéey pourquoi ñu leen di naxee toujours ay salle de classe pourquoi ñu leen di naxee toujours ay ay de santé alors que yoon ya jaguñu askano bu ñu bëggee ndékki mu tëleen bu ñu bëggee añ mu tëleen bu ñu bëggee reer mu tëleen nañu xool nu ñuy partager ressources yi ba askano ci boppam mën cee gis seen bopp ba nga xam ne ñoom dinañ ci mën a jot te duñu ñu ñee kenn parce que loolu également c'est un grand souci. muy lu am solo jamono jooju jàppale ne kon gaz bi ñu ngi koy wër ba léegi boo demee ci boutique yi fii ci doon Dakaru gaz bu 6 kilo beex 9 kilo bi euh, daanaka doo ci gis dara waa Total nee nañu euh, dañu jël li nga xam ne moom mooy lot 28 bi jëm ci 6 kilo beex 9 kilo bi. ndax nak ñakum kaaraange gi ñu ne meeku ak l'explosion bi amone ci der derkle bam ñu sa fatu kaaraange rek lañ ci jublu jay kat nak nee nañu nañu gaaw wat gaz bi bala rupture di am ñu and seet Tidiane Diallo. Parcelles Assainies unité 7 6 jaarale ko ba liberté 6 ñuy gérer dépôt de gaz yi kenn bugul wax ci problème gaz bi waye nak jay kat wax nañu ci mbir mi. su ba la journal bon mais pour man avant ñu koy communiquer war nañu def benn communication boo xam ne bu yaatu parce que y a les gens yoo xam ne duñ déglu sax rajo am na yoo xam ne duñ déglu télé mais war nañ jël benn benn équipe ñu wàcc sur le terrain xam na nit yi kat lii dañ ko bëgg interdit parce que lii lay lore. dañuy vérifier qualité euh, qualité naka la nga koy vérifier ah. bah je sais pas xaw naka lañ koy vérifier ba nga ñëw rek jënd. déjà problème am na ci distribution bi ndax gaz dafa manqué ci ñenn ci quartier yi. gars ñoo ngi koy laajte chaque jour chaque jour ñoo ngi yóbbu laajte gaz ça fait deux semaines ñun sax jaayuñu gaz. léegi gars yi ko amul gaz day mel xam nga état bi ñun la ñu léegi. <laughs> ñoo ngi wër fa nekk instant xam naa ni manqué na parce que dugg nañ boutique yu bëri amuñu. gérant dépôt de gaz yi nag bëgguñu wax ci problème mu gaz bi ndax dañoo ragal entreprise bi bañ leen joxati gaz ngir ñu jaay. da xam ngeen ne kon démb la ñu doon installé équipe bu yees bu CORED conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie euh, mu mel ni nag ñoom ñooy tribunal bu taskatu xibaar yi équipe bu yees boobee nag daanaka euh, dañuy saytu liggéeyu euh, taskatu xibaar yi am nañuy teg ay daan sax loolee nag daanaka nee nañ démb jot nañu sax def bilan ba ci kanamu abdoulaziz Aziz Sow Madani Marega seen lim toll ci fukk ak ñaari membre équipe bu bes bile amna juroomi juróomi soxna ñile taxaw nañu tém ngir journaliste yi sàlloog charte yu tënk seenub liggéey. prenons comme engagement. dinañu taxaw temm ngir suñu liggéey kenn duñu wax nuñu koy defee anam bi ñu koy jaaree duñu may kenn mu koy xamal. dinañu def suñu kéem carte itam ba benn journaliste du liggéey ci pression ak fu munta jóge duñu nangu itam dara lu jógee ci wàllu beddi compté. quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. de ne cautionner aucun contenu basé sur la discrimination.

et quelquefois à des personnes morales. depuis 2014 bataille, bataille bile mooy ñetteel bi de CORED di tribunal des pairs Nilekon, lekkoon na ma teg seen journaliste yi Mongo dañu desandi ci cérémonie d'installation membre tribunal des pairs bu euh, correct directeur de communication ba la mu fa joxe ne ay xibaar moo di yàggatul dara daanaka ci weeru octobre bi dinañ siiwal euh, liste organe de presse yi nga xam ne état daf leen reconnaître moo xam yi nekk Sénégal wala yi biti réew Ousseynou euh, Dieng ay doom ñu teewlu ko. que notre département. département du ministère de la communication dina publier lu yàggul dara Lata weer bi di liste organes yu ñu reconnaître yi muy organes yi sàlloog charte yu tënk liggéeyu presse. ci es ba itam commission bi saytu lépp lu jëm ci carte nationale de la presse war nañu fësal limu ñiy liggéey ci wàllu média te yor carte presse bile noni itam nañu koy defé ak presse étrangère bi ndax dañuy recevoir ay journalistes yu bari yu jóge biti réew ci dafa am enjeu manam dañuy waajal élection présidentielle yi assainissement presse bi du yem rek ci presse locale bi dañu koy yatal itam ba ci presse étrangère bi mu ak ñu wara publier liste organe de presse yi nga xam peut-être ñom lañu reconnaître en tout cas Ousseynou Dieng mom moy directeur de communication bu ministère bu ñu dénk walum communication euh, daanaka nag fi mu nekk di wa correct am nañoo sas jamono ji nga xam taskatu xibaar yi ñu ngi leen di joxoñ baram ci seen façon mu liggéey deug la deug la té initiative bu am solo la Aziz Sow mu koy fàttali depuis déjà 2014 je crois bi mo ñettel yoon ñuy installé ay nouveaux membres ci tribunal des pairs tribunal des pairs père boo déggé moy say morom mm-hmm. ci cadre liggéey bi donc say morom yi nga xam ne yow boo defee lu defuwut par rapport ak métier bi ñoom ñoo lay àtte ñoo lay àtte ñoo lay jéem a tegaat ci yoon donc lol dong la euh, et je pense que c'est c'est important c'est important ci jamono ji nga xamné ñi ngi wax mbirum assainissement de la presse mhm. jamono ji nga xam ne également taskatu xibaar yi ñu ngi leen di joxoñ baramu tuuma ci lu bare bare jamono ji nga xamné également am une rude concurrence entre la presse dite traditionnelle et la presse numérique nga xamné légui mom euh yenn say bala ngay joxe information yow ma fi nga tok bo fek information bobu ñu bari jitu nañ la ci ba wal nañ ko sur les réseaux sociaux donc il y a énormément de choses yo xamné tax na heure ba tay ji taskatu xibaar dañoo war a mm. adapté wu mais toujours en étant conforme ak li nga xam ne moom le métier bi laaj parce que ak lu mënti am le journaliste restera toujours journaliste dafa am luy liggéeyam di laaj moom dafa am foo xam ne fa la war a mën donc tribunal boobee moom moo fi ne au moins euh, boo xoolee ci bilan bi nga xam ne def nañ ko ñu koy rafetlu mooy au moins weer wu ne en tout cas ci at bi passé weer wu ne au moins euh, gérer nañu benn cas euh, léegi nag li am mooy le débat s'était posé récemment. Pourquoi journalistes nous ñu les traduire devant la justice alors que le tribunal des pères ne s'est pas saisi ou n'a pas été saisi parce que le tribunal des pères, le correct de manière générale ne na pas que nañu Nous du yëfi journaliste ci cadre liggéey bi ñoom ñu dossier boobee lijjantil ko seen bopp wala boog ay citoyens yoo xam ne nañu ne taskatu xibaar bi la par rapport à une situation par rapport à l'IGB, ne wut mu saisir correct correct doog mën a euh, fexe nu muy lijjantee dossier boobu. Mm. def enquête ba ca war entendre ñam war a entendre ba pare jël àtte jël ci dogal loolu c'est important mais lii également def ñoo war a mën a pousser à une certaine pas forcément collaboration. Euh, boo xam ne euh, peut-être presse bi ak justice war nañ ko mën a def parce que am na journalistes yu bëri yoo xam ne dañ leen di convoquer devant la justice dans le cadre de leur travail pourquoi mënuñu ko jaarale directement ci tribunal des pairs ñu xool nuñ ko fay lijjantee sanction ya ca war eh bien ñu mën ko def ci kaw journaliste yi parce que am na ay sanction de l'avertissement au blâme am na ñoo xam ne sax ca la ñu jaare ba léegi amuguñu seen carte professionnelle moom du coor mu ngi koy mu ngi koy wax la carte nationale de de de presse mhm. donc loolu yëpp ay xeetu mesure la yoo xam ne dañ ko teg pour encadrer liggéey bi et je pense que c'est important léegi nag lu jëm ci liste organe de presse yi loolu également je pense que euh, baax na ci surtout ci contexte pré campagne ak campagne électorale bi nga xam ne ci lañ jëm mhm. parce que période bi mambay ci ngay gis ñu bëri créé journal mhm. bilaay bu nekk day journaux yi dafay gën a bëri parce que ku ci nekk bëgg nga créer benn support de communication boo xam ne ci lay politique say vision say discours lépp di jaar mhm. nga xam ne yow day porter maanaam sa sa combat muy une presse d'opinion di nga ci gis ñu bëri également peut-être bu doon jamono en nga ne nit ñaa ngi créer ay rajo pour peut-être mën a am relayer seeni ay discours politique mm-hmm. donc loolu yëpp dafay bokk ci contexte boo xam ne lii bu taxawee ñu ne la léegi pour nga mën a euh, euh, pour pour pour campagne bi en périphérique de la campagne voici la liste des organes de presse nga xam télé yi ñu reconnaître nga xam rajo yi ñu reconnaître nga xam presse écrite bi ñu reconnaître ba ci presse étrangère bi ba ci site internet yi parce que am na ñu bëri ñoo xam ne peut-être ñu ngi am support de communication mais la ca war defuñu ko wala ñoom la mbir ma laaj ñoom doonuñu ko donc autant de problème yoo xam ne dafa jot nag ñu réguler ko ñuy remercier waat wala boog di féliciter bu baax a baax waa CORED ci initiative yi ñuy jël di leen encadrer également di leen encourager sax par rapport ak assise de la presse yi nga xam ne lancé nañ ko ça fait déjà quelque temps processus baa ngi continuer commission yaa ngi liggéey ñu xaar nag conclusion yi ak peut-être recommandation yi ak lan mesure la ñuy génnee justement pour gën a ñongal liggéeyu taskatu xibaar di encourager waat une fois de plus tous les confrères yi nga xam ne ñoom également buy nit ñi di nelaw ñoom ñu ngay informations information buy nit ñi di yeewu ñoom ñu ngay lijjanti information juste pour informer juste et vrai et je pense que c'est très important. Donc, ils méritent également qu'on les soutienne. Ils méritent également que nous n'y en 8h48 minutes, mais